mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen gërëm ci bës bi nga xam ni euh, le 10 avril 2021 la ñu woote woon Massalikul Jinaan ci ndégalu Cheikh Sidi Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Mourtada ak mboolem ñi nga xam ni ñoo seq liggéeyu Sar Sara ca Mauritanie ci réew mi ak bitim réew ngir doon def cérémonie de lancement Serigne Sidi ñëwoon présider ko ak mbokk mi baax yi ak umma islamique bi yëpp wax dëgg yàlla ñu daje fii tey ci Massalikul Jinaan murit ñëw na tijaan ñëw na xaadir ñëw na layeen ñëw na association religieux yi ñoom ñëpp ñëw nañu ñu waxtaane solo Sar Sar waaye itam di waajal cinquième jours ci gannaaw kori ngir taarixal alwirdu Maxuus ca euh, musée national bu Nouakchott euh, bés bi nag bañ xëy ba léegi tàmbale nañ ko ci njàngum alxuraan ak xasida ak waxtaanee solo Sar Sar ak it bëgg àddina bi yëpp fépp fu murit nekk wala fépp fu jullit nekk nga xam barab boobu xam noo cay jariñoo